Mia Guissé ci anniversaire am bi dal dina ñu koy jébal 10 millions de francs CFA comme cadeau Aziz Ndiaye euh, dal dinay démentir information bay laalé ak kër gi nga xamné ne may na yaayu ki di Aziz Dabala dal leen ak jamm bokk internet yi ci Buzz Showbiz euh, ñu dal di ñëw ak yéen ci anniversaire Mia Guissé bi nga xamné depuis demb ba tey moo nekk di lembé internet bi li nga xamné nak euh, dal dina ñu ko ci gis mo nekk moom moomii di Mia Guissé bii lee anniversaire surprise dafa nekk la nga xamné ay jaga jagañaaleem xaritam ak des membres de sa famille dañu ko ko organiser surprise ngir nak laata muy dem fofé ci Paris ñom ñu daldi fi amal seen avant première ci biir lolé nak daldi di nañuy gis né frère bi nga xamné mom mo nek nekk Pape Djibril Guissé daal di nay jël lu tollu ci fukki million 10 millions de francs CFA daldi di ko koy jébal en guise de cadeau. ñi nga xamné nak téw nañu fa té seen ab teewaay nekk la nga xamné daldi daal nay passé inaperçu bokku na ci ki di Bébé Binta ak Fatou Ndiaye nga xamné ay fan yële ñu génn gisoon nañu né ñoo ngi doon échangeante ay kàddu yu ñaaw benn problème bu ndaw bu doxone seen ab diggante. mais daal mel na ne lépp daal dinañu koy bàyyi finalement seenab ginnaaw ndax gis nañu kii di faatu Ndiaye ab vidéo ba nga xam ne def na ko naan ci Binta en compagnie de DJ Kheucha mu nekk nag benn geste ba nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy saluer dem sax bay wane naan moom la mu doon wax dëgg la nekkul ka nga xam ne dafay jàpp ay mbir bébé Binta rakam la et aussi dafay wéyal di ko considérer noonee toujours euh, ci actualité bi ñu daal di ñëw ci kii di Aziz Ndiaye moom om d'affaires bi nag dafa am ay nit ña nga xam ne dañoo jàllale ab information comme quoi dafa daal di jël ab kër daal di koy may yaayu kii di Aziz Dabala li ni mel nag kii di Aziz Ndiaye daal dinay xam ne nekkul dëgg waa kaw Kawtef ñoo daal di fësal bii lay démenti

dal xelu enquêteur yi ba tax na nag ko bokku na ci association de malfaiteurs mais aussi complicité d'assassinat avec barbarie mom qui di Nabou Leye nag xëy na li nga xamné ne ngi wax naan laalewu ci wala wu ci benn yoon bu ñu ba war leen juger ay avocat wam dinañu daal di démontrer preuve ya nga xamné dinañu daal di wane lu wara mëna tax ñu daal di koy bàyyi mu ñibi këram ndax amna na ña nga xamné nak batay li nga xamné ñu ngi kay wax moy ki di Nabou peut-être que elle est réellement innocente comme ni nga xamné noonee la koy njoxtee mais li nga ne gën na appel bi nga ne dina koy passé ak ñi nga ñoo de les meurtriers de Aziz Dabala gannaaw ko faatee ba noppi ak téléphone bi nga ne localiser sur les lieux du crime juste après mel ni nag moom sax selon yenn ci journal dafa daal di Aziz Dabala ñi nga xam ne ñoom ne ko mel nit ki yëf yi nag daal di mujjee mal tourné ba mbiri faat ba kenn daal di ciy dox sëru kii di Aziz Dabala moom nag mu daal di amal ab révélation xam le ne nag Aziz laata muy génn àddina waxoon na ko ne am na benn natt ba nga xam ne bokkoon na ko ci kii di Nabou Leye xaalis boobee nag am na la nga xam ne waroon na ko ci def jusque là nag gisaguñu kenn ka nga xam ne daal di lay firndeel yooyu les propos ka nga xam ne ab jagañaale kii di Nabou Leye la mais daal li nga xam ne daal dinay créewaat beneen polémique mooy boobu lay déclaration am ña nga xam ne sax ñu ngi daan est ce que nekkul xaalis boobee moo tax eh, kii di Nabou Leye seetlu ca biir mbiri faat kenn ñu daal di ñëw ci beneen drame bi nga xam ne daal dina xew eh, foofee ca Sacré Cœur benn waaye nag eh, la ñu wax ne dañu ko daal di poignarder à mort waa kawteef ñooy fësal yeneen information gannaaw ba mu nekkee ca otoom agresseur yi nga xam ne ñoo jëf li ni mel nag jot nañoo yóbbu téléphone am foofee ca Pikine Icotaf aussi lu gën a ñaaw naroon faa am mais heureusement ba ñu xam le ne voisin yi ñoo daal di intervenir ndax dafa am benn jarbaat ba nga xam ne dafa doon xuloo ak son nijaayam gannaaw ba yëf yi nag euh, tàmbalee yéeg moom mu gàddu ab paaka la mu bëggoon nag mooy daal di dem égorger ko mais heureusement dafa am ña nga xam ne dañu koo dogale ba daal di nangul boobu lay gànnaay toujours ci actualité yi foofee sa ñooroo benn waaja nga xam ne mu ngay wuyoo ca tuxu El Hadji yi tollu toll ca juróom benn fukki at 60 ans moo daal di ñàkk bakkanam alors que takk der yi dañu ko arrêté woon ngir daal di koy yóbbu ca post de police ba moom wax nañu ne parce que yamba la ñu fekkoon ca këram gannaaw ba fa takk yi defee ab descente moo tax euh, ñu arrêté woon ko mais dafa daal di piqué ab crise moom ba daal di ñàkk bakkanam mu nekk nag ab déclaration ba nga xam ne dalul xelu ay dëkkandoom ba tax ñoom nag li nga xam ne ñoo ngi koy sàkk moo nekk ñu daal di ubbi ab l'enquête ci bii dee mbir daal di koy leexal ca na mu gën a gaawee ñoo ngi leen di jaajëfal mbokki internet yi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro d'actualité